إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala boroom boobu nga xam ne moo ñu moom moo sàkk lépp lu nekk ci ñun mboolem xéewal ci moom rekk lay jóge ñi ngi seede ne yàlla rekk moo yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi seede ne yonent yàlla muhammad ab jaamam la woon ba mu yónni ci ñun ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na julli ci yonentam boobu ak i saxaabaam ak ña koy roy ba ilaa yawmi diin mbokk suñu xutba tey mi ngi jëm ci benn aaya bu suñu borom wax ak ñun ci téere bi mu ne falaa taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxaruur yéen jullit ñi fexe leen ba àdduna bu mu leen wor fexe leen ba workat bu mag bi di seytaane bu mu leen wor yéen mbokk jullit suñu borom yàlla day moom moo ñu bind bam ñuy bind daa amoon jubluwaay bu taxoon mu indi ñu ci kaw suuf jubluwaay boobu mooy nañ ko jaamu bañ koo bokkaaleeg dara gannaaw ba mu amal ñu beneen kër ca àllaaxira ña nga xam ne loolee mu leen santoon ci àdduna def nañ ko mu jagleel leen kërug teraanga ga ñuy tudde aljanna yal na yàlla boole ñu ca waaye mbokk ña nga xam ne dañoo fàtte woon ña nga xam ne dañoo réere woon lan moo taxoon yàlla indi leen ci kaw suuf ñooñee suñu borom yàlla ma nga leen di jagleel ak mbugalam yal na yàlla subhaanahu wa taala musul ñu ca mbokk suñu borom daf ñoo woo mu ne ay yéen nit ñi xam leen ne yéen ak jinne yi binduma leen lu dul ngir ngeen jaamu ma laajuma leen benn wërsëg man yàlla man may kiy wërsëgal man may borom kattan gu mag gi suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ay yéen nit ñi jaamu leen seen borom mi leen bind bind ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon gannaaw loolu mu ne naka ngeen di weddee te yéen a ngi jóge woon ci ñàkk dund doomu aadama ba baa ngay am ñeenti weer sa biiru yaay yaa ngi nekkoon ci ñàkk dund gannaaw ba suñu borom mu ne ma dundal leen danaa leen faat ca danaa leen dekkal maa leen bindal lépp lu nekk ci kaw suuf yow doomu aadama yaa moom may naa la ko gaynde yaag ñay ya or ba ak pétrole ba gaz ba ak lu mu mën a doon lépp yaa tax ma bind ko waaye ngalawaay xam leen ne yéen la taxoon ma bind leen mooy ngir ngeen jaamu ma looloo tax mu am leen ci ay jaamam muy firawna ak ñëkk a waroon suñ borom ubbil leen àdduna may leen ñu tabax ay taax yoo xam ne yéen ndaw ñi ba tey boo demoon UNESCO ñi ngi ko boole parmi les sept merveilles du monde mooy pyramide yooyu firawna tabaxoon nga xam ne daa yéem ingénieurs yi tey ca mooy jamono boobee bulldozer amul lu bari ci technique yi amul nan lañ mën a def ba tabax loolu waaye yàlla kattanaloon na firawna ak ñëkk a wër loolu yàlla ubbil leen ay jardin jël la nga xam ne mooy fleuve dex gi gën a rëy jaare la ko ci ñoom muy le Nil amul lenn lu ñu manquile loolee lan moo taxoon yàlla def ko mooy nañu déglu benn notable ca notable firawna yàlla baaxe ko mu gëm Muusa mu ne ay yéen saw xeet xam leen na àdduna ji wër ñu taaru lool bànneex bu ndaw la léegi mu jeex allaaxira mooy kërug saxugaay gi képp koo xam ne def na lu baax képp koo xam ne def na lu bon duñ ko fay lu dul lu bon waaye ku def lu baax na doon góor la wala mu doon jigéen la boole ca gëm yàlla ñooñu day ñooy dugg aljanna ñu leen di wërsëgal wërsëg wu amul fenn fu mu yem ay yow mbokku jullit mi xam lii mooy àdduna xam lii moo la fi indi ndax ku mel noonu mbokku jullit dana jël nag àdduna boobu nga xam ne ab jaar-jaar la buy jeex mu jël dundam gépp jagleel ko lay tax àdduna boobee baax fàtte beneen kër ga nga xam ne moo koy xaar nga xam ne moom du jeex ba faw ndax borom xel dana def lii tontu li mooy déedéet Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu ñëw na ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na maa ngi ko fekk mi ngi tëdd ci benn bassan ba très bassan yi sax mi ngi jeexital ci yaramam nee na néeg bi benn mbuusu pepp laa fa gis sama rangooñi bi muy tuuru tayuma ko yonent bi ne ma waaw Omar lan la mu ne ah yow mi yàlla yónni dama xel sama dem ca buur ya nekk ca Faris buur ya nekk ca Ruum muy puissance yu mag yi fi nekkoon ca tey yow mi nga xam ne yaay tànneefu yàlla coono bii ngay dund bu ne ko Omar mbaa du yow da ngaa bëgg sikk sàkk nag Omar man maag duniyaa lan la ñu siq man day àdduna daa mel ci man ne koo xamee ni nii da doon tukki bam ñëwee ca ah bis bu tàng mu romb benn désert daal di fay gis benn garab mu doog fa toog fa nopp lu tuuti jëlaat ay bagage am jàll Omar man nii laa gise àdduna looloo tax wér na ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom tànnuloo na ko ci mu nekk malikan rasula aw abdan rasula ne ko bu la neexee mu ubbil la àdduna nga nekk am nguur goo xamee ne nii lépp ngay am wala nga nekk jaam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo gis ni bam xamee fa yàlla teg àdduna dafa dummoo yu àdduna daa di nangoo dund la nga xam ne mooy dunduk fuqara loolee àdduna joojee suñu borom digoon na ko ne du ko wàññil dara ci payug yàlla waaye yërmaane bu mu amoon ci xeet bi mu tànn dunduk faqiir lépp lu ko masaan ñëwal ci alal mu tasaare ko jaami yàlla yi ngiree nekk royukaay ñeel benn bépp julit yàlla na yàlla subhaanahu wa taala fayal ñu ko ay yéen mbokk julit ki nga xamee ni nii moom mooy aji xel dëgg-dëgg borom xel mi ci ñun mooy ki nga xam ne adduna bi xam na ne dafiy jaar am na foo xam ne nag dafiy sax foofee nga xam ne dafay jaar mooy mu fexe ba góorgóorlu bala nga xamee ni nii moom mooy diineem dana ko mën a dund waaye fexe ba faggu la nga xam ne mooy àdduna àdduna du ko yàqal diineem kii mooy borom xel waaye ka gën a xellu ci borom xel yi mooy kan mooy ka nga xam ni dana dund diineem waaye àddunaam yépp yéene ba mu cay am mooy jagleel ko jaamu yàlla maçon bi di xëy di yëkkati ay birig xalaatul salaire biñ koy jox waaye mi ngi xalaat pay ngay jóge ci yàlla ca mooy maa ngi rendre service ay nit nar a dëkke fii soxna sëy di sëy sëy ba da koy jàpp maa ngi jaamu ji yàlla yow mi nga xam ne yaa yori employé wala yor ay soxna ak njaboot njaboot googi yaa ngi cay sàkku yàlla lépp loo xam ne nii ab jëf la booy jëf mu jëm ci àdduna it doo ca jéem a sàkk lu dul sa ngërëmal boroom kii mooy ki gën a xellu ci jaami yàlla yi yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca mu am mbokk waaju réer waajee réer mooy kan mooy ka nga xam ne nii àddunaam itteel na ko ba mu sàggane la nga xam ne mooy diineem sànq la nga xam ne mooy ay waru garam am na nag ku gën a sànq kooku téeméeri yoon mooy ka nga xam ne moom diina jëla far jël daal di koy jënd àdduna na doon ñi nga xam ne ñooy woo nit ñi di leen nax di lekk seen alal wala ñi nga xam ne dañuy xam ne lii kat lu yàlla araamal la ca njaaloo ga ca sàcc ga ca carte ga ca leneen ak leneen ñu jaar ci loolu ngiree dajale àdduna ñooy ñooy yi nga xam ne mbokk amul kenn ku leen gën a réer mbokk àdduna yàlla fii mayee suñu borom nag nee na xam leen ne lépp lu ngeen fi jot bànneex la boo xamee ni nii ci àdduna rek la yem du leen jëriñ dara ca àllaaxira suñu borom mu ne ma xoolal su doon dama leen a may ñu dund at yu dul jeex in mattaanahum sinin suma jaahum ma kaanu yuadun ma agna anhum ma kaanu yumattaun junni at bu doon da nga koo dund nekk président des États-Unis junni at yoo xam ne mosoo feebar mosoo jàq mosoo jaaxle mbokk bis boo deyee te deyaale woo ngërëmal yàlla da ngay fàtte ne mas ngaa jaar ci àdduna àdduna boobee day tuuti ci yow ba nga jàpp ne benn bëccëg nga fi def bal ba nga jàpp ne benn saa rek nga fi def loolee kon nga la waay yoomi borom xel jëfel la nga xam ne sa borom wax na la ko sa borom yàlla nee na wabatexi fii ma ataaka allahu daral axira lépp loo xam ne yàlla may na la ko ci xam-xam ci alal ci jot ci kattan nga la way fexeel ba lépp nga sakku ca ngërëm gam lay xaar àllaaxira doonte ne bul fàtte sa cër ci àdduna waaye nga rafetal ni yàlla rafetale jëme ci yow lu la yàlla may ci xéewal rekk xañ na ko ay jaam yu bari yu ko bëggoon ci amuñu ko xam-xam la alal la kattan la nguur la lum mën a doon jaami yàlla yu bari bëgg nañ ko amuñu ko yow yàlla subhaanahu subhaanahu wa taala jagleel la ko nga la way santal yàlla ci loolu lépp doo ko jëfandikoo lu dul fa nga xamee ni nii moo neex sa boroom jalla wa ala mbokk julit àdduna mi ngi nii allaaxira mi ngi nii doomu aadama bi war naa góorgóorlu ba ñoŋal la nga xamee ni nii mooy àddunaam ci lépp loo xam ne du yàq diineem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ñaanam yi gën a bari mooy mu wax yàlla ay yàlla sama diine ji nga xam ne moo may tax a mucc àdduna ak alaaxira ay yàlla yàlla nag ma ko yéwénal waaye yàlla it yàlla nag ma yéwénal àdduna ji nga xam ne ci lay dunde loole imaamu muslim solo na ko bal am na benn ñaan boo xam ne yey na ci bépp julit mu mokkal ko góor ak jigéen mag ak ndaw buxaari soloona muslim soloona ci ni la ëppoon ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy la suñu borom wax rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annaar ay yàlla yàlla nag ñu may la gën ñu am ko ci àdduna yàlla nag ñu may la gën ñu am ko ci àllaaxira ca yàlla nga musul ñu ci la nga xame ni nii mooy mbugalum safara lii mbokk jullit buñ ko xoolee moo di ne jullit heure bu mu mën a doon mi ngi bàyyi xel ñaar yi di peese fu mu mën a toll la nga xame ni nii moom mooy addunaam ak allaaxiraam mu ñuy jàngalit itamit ne doomu aadama bi ci boppam suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxu ko ni adduna bu ko jagleel dara bal suñu borom da koo wax ne àdduna xoolal la nga xam ne moom la yeyoo nga yem ca borom boobu subhaanahu wa taala bokk na loo xam ne ab jullit war na koo xam moo di ne mbokk àdduna ji ak loo ci sonn sonn sonn doo dem mukk ba am loo xam ne suñu borom yàlla jagleelu la ko nekkal agresseur nekkal njaalookat nekkal lekkatu riba munoo am lu dul la yàlla jagleel la abadan ca lépp loo mën a am daañ la ko régler ëllëg lépp loo yóotu ca jotoo ca ca lu xaraam la daañ la ko régler ëllëg amaa suñu borom nag mu ne koo xam ne nag yaa ngi jëfal allaaxira la allaaxira yeyoo ñu jëfal ko ko ca loolu it lu ñuy lu ñuy jàngal doone rek man damay jël sama mbir yépp jubal allaaxira lépp ma jagleel ko jaamu yàlla déedéet suñu borom dane wa saalaha sayaha la jiitu ci yow mooy nga jëkk a jàng lan la suñu borom yàlla en santaane ñu war ko koo jaamoo lii rek mbokk jurit mooy la nga xam ne moo lay tax a taxe waaye bokk na jafe-jafe yi ñuy dund tey mooy li ëpp ci doomu aadama yi xàmmeewuñu cëru àdduna ak cërub allaaxira ñii jël nañ àdduna jox ko lépp ñii jël nañ li ëpp jox àdduna lu néew ci jaam yi ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy régler seeni mbir ca loole moo tax boo doon xool nit ñi tey di leen seetlu dangay gis ne la gën a tax ñuy békk mooy àdduna la gën a tax ñuy tiisu mooy àdduna la gën a tax ñuy jàppante mooy àdduna la gën a tax ñuy noonoo mooy àdduna la tax ñuy fenn ko warante moom mooy àdduna la nga xame ni ni moo leen yóbbu ci lekk lu xaraam mbokk du dara lu dul la nga xame ni ni mu mooy àdduna képp koo xamee ni nii yaa ngi ko dégg jabar a ngay xuloog jëkkëram lan ma leen boole adduna bàyyi ak i ak i doomam lu leen boole adduna dëkkandoo ki moroomam lu leen boole adduna néew na abadan nga gis ñoo xam ni dañ na ñii kat seen problème mooy kii day dafa nekk ak moom sama jabar jii du julli looloo tax ma fase ko sama jëkkër ji dafay naan moo tax ma fase ko sama doom jii kat dafa nanguwula def ndàngam moo tax ma teqale ko moom la ëpp lay teqale doomu aadama yi mooy adduna la ëpp la tax ñuy sopp doomu aadama yi mooy adduna loolee nag mbokk mbir la moo xam ne nii ñàkk a xam adduna la adduna boobu nga xam ne suñu borom buñ delloo ci téeréem bi kenn xamul ñaate misaal la ci dóor bokk na ci mu ne ay yéen doomu aadama yi xam leen ne dund ak àdduna gi day foo kese fi nekk caaxaan kese moo ci nekk waaye day dund ak aaxira moo gën ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla su leen ne xellu ngeen mu wëlbatikuwaat ne xam leen ne dund ak àdduna mi ngi mel ne taw boo xam ne daa jóge kaw asamaan bi mu ñëwee daa di génne gàncax gi ci loo xam ne jur gi dañ cay lekk ak bàyyuma yi ba suuf daa di taaru jël ab taaram ca mooy doomu aadama bi nga xam ne kër yaa nga ne oto yaa nga ne tool yaa nga ne compte bancaire yaa nga ne lépp loo xam ne am na ko waaye bis rek mbetteel daa di ñëw mbetteel ba mooy mbetteelu dee mbokk nga génn àdduna dajale ba dajale ba luy génnaale mooy quelques mètres percal yoo xam ni la ëpp sax du bokk ci la nga doon dajale sa bokk njegeñaale moo koy génn def ko yow nga génn ak loxo yi neen ci àdduna heure boo xamee ni nii fàtte woon nga àllaaxira perte nga gën jaa màgg ci perte yàlla na yàlla musul ñu ci loolu mbokk suñu borom yàlla wax nañu àdduna ci misaal yu bari mu ne xoolal nit ñi rek farixu bil xayaati dunia wa mal xayaatu dunia fi l axirati illa mataa la ëpp ci nit ñi la leen bégloo mooy àdduna baax na adduna baax na ñu daal di bég ci loolu luñ bëgg am nañ ko ca borom bi mu ne xanaa xamuñu ni adduna boo ko comparé ak alaxira loolee nekk na loo xam ne lu tuuti loolu suñu borom yàlla moytu looñu ay yéen nit ñi xam leen ne adduna li fi fees mooy laibun am porek po bu dul jeex football baa nga lamba jaa nga ah daje caaxaan yaa nga gannaaw ba lëhwu lëhwu mooy lépp loo xam ne day dox sa digganteeg jaamu yàlla ziina xëccoo ci taar tafaaxur ëppalante na doon loolee ci lu mu mën a doon ca alal ja ca doom ja waaye borom bi nee na li lépp daa mel ne rek benn taw boo xam ne ñëw na ca tool ba génn gàncax ga balaa yàgg lépp jaune balaa yàgg lépp lax yàlla indi ngelaw mu daal di koy tasaare mu naaw fur daa lépp tasaaroo borom bi nag nee na misaalu àdduna ngi noonu yow mi fii xam ne yaay fay nekk di dajale di dajale di dajale bis lan mooy masa am mooy la kenn ci sunu magi réew doon wax doomu aadama bi fàtte boroomam di jal di jal di jal di jal benn bis jalla jalaaluhu muy suñu boroom dana masa ñëw jël ko moom ci boppam ñu dem jal ko wëlbati ko séddoo jal ba mi ngi noonu loo fi mën a am di milliard ak lu mën a doon bis ci ab jal ngay mujj mooy bàmmeelu diw ngi nii jeex na premier ministre mi ngi nii président mi ngi nii général d'armée bàmmeeli mi ngi nii jeex na loo ma sa bàyyi ci àdduna nag doomu aadama yi ñoom daal di koy séddoo commencé ca noos loolu mbokk moo tax ki am xel lan la war a jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ja li jaabir ibn abdullah nettali nee na ànd nañu moom ñu dem ba ci benn quartier ci madina ñu romb seen benn fu ñuy sànni ay mbalit yonent bi gis fa benn bëy bu ndaw mooy benn tef boo xam ne nii amul ay nopp mi ngi médd yonent bi yëkkati ko ak yatam daa ju ne armée bi kan mooy jënd ci man lii ci dërëm ah gars yi na ko ayum yàlla yónni kii day boo ci laajul woon dara it kenn du ko jënd mu ne wallahi maa ngi leen di seedeel ne yàlla day àdduna ni mel ci moom moo gën a suufe ni ngeen bañee bëy bu médd bi na yàlla xeebe àdduna loolu moo ko gën a màgg looloo tax mbokk àdduna bari ne léeg-léeg ab jaamu yàlla ma ngay góorgóorlu lool suñu borom yàlla xañ ko àdduna ngiree bañ àdduna jooja yàq diineem bari ab saay-saay bu mbëru lool yàlla di ko xëpp guddi di ko xëpp bëccëg ngiree loolu nekk war ci moom loolu kon ku nekk ci ñun war a bàyyi xel ci yéen mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci xadis boo xam ne Ibnu Maaja solo na ko Albani wéral ko من لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء bu doon yàlla bi mu bindee àdduna ak lépp luy trésor kaw suuf dafa amoon importance ci yàlla ni laafu yoo toll kon yàlla du ca may ab yéeféer benn guuxu ndox lan moo tax ba yàlla indee àdduna ba tey quatre-vingt-dix pour cent richesse yi yàlla bàyyee ko yéeféer yi ndiree kërug nattu la kërug nattu la loolu moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala seetaan leen ci loolu su ko defee nag allaaxira ki yow mi nga xam ne yow la àdduna bëggoon a këf kaay àdduna bi mi ngi nii nii la ko sa borom sa fantale waaye allaaxira rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen su bëggee xam lan la yàlla waajal ca aljanna ak la nga xam ne mooy xiiwulu àdduna ngan la waay na doxantu ba géej mu jël baaraamam samp ci géej gi xool li taq ci baaraamam nee na lii mooy méngoog mboolem xiiwalu yàlla ma sa wàcc ci àdduna am maa la des ci géej gi nag loolu mooy aljanna ndax doomu aadama mënees naa comparé lii ndax mënees naa yemale lii abadan looloo tax ngan la waay yow mi borom xel ragalal yàlla jalla wa ala bu la lenn yóbbu ci bëgg mbëggeelu àdduna bu yàq sa diine bu la ngërëmal kenn tax nga jënd ko ngërëmal yàlla bu la merum kenn tax nga jënd ko merum yàlla góorgóorlu suñu kemtalal kattan ci àdduna ji luñ cay dajale suñu yéene du nekk lu dul mu dimbi li ñu ca la nga xamee ni nii mooy suñu mbiru àllaaxira bu ko defee yow mi nga xam ne ndawal jullit fiiriwul ne kon ah bàyyi lépp luy àdduna demal nga daal di toog beru di jaamu yàlla mbokk lislaam gërëmut loolu islaam daa gërëm suñu borom nee na maa leen tàggatal lépp lu nekk ci kaw suuf fexe leen ndaw ñu nekk des ingénieurs des scientifiques fexe ba jiite àdduna fexe ba am alal fexe ba loolu lépp ngeen tàggat ko ci ah la nga xam ne mooy jur ngërëmul boromam ca saxaabatul kiram noonu lañ meloon lan tombee loon ci seen jamono ñoo ko jiite ba tey boo laajee scientifique yi ba baa quinzième siècle dañ daan wax ku bëgg xam-xam ne dem jàngi arab ndax mooy la nga xam ne nii mooy làmmiñu xam-xam mboolem développement bi nga xam ne am na tey Occident cosaan ba ñu ngi ko jële woon ca la nga xam ne muy jullit ñooñee lala lislaam di tere daal mooy del balance mbir yi lépp loo xam ne am nga ko ci àdduna fexeel ba sàkku ci ngërëmal borom bi lépp lu la nar a xam ngërëmal borom bi bu doon nguuruk àdduna yépp sax ba ko alalu àdduna yépp sax ba ko waaye lépp loo xam ne ni mën na dagan dajaleel sàkku ci la nga xam ne moom mooy sa ngërëmal boroom ay yéen mbokku jullit xam leen ne tey jii bu ñu xoolee doomu aadama yi bari na tey lu bari ci nit ñi la nga xam ne mooy seen tiis mooy seen jàmbat ngir àdduna baaxul seen diine buñ ci xamul dara seen yoon niwu ci seen jaamu yàlla bu manqué seen yoon niwu ci amaa lu na kutt ci seen àdduna àdduna tukki na ña ngay coow ña ngay jàmbat ña ngay triste loolee nag mbokk ñàkk xam mbokk àdduna ji la nga xam ne nii da nga ko cee ñàkk waruloo tax mu nekk sa problème la war a nekk sa problème mooy sa diine rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nañu ne suñu borom yàlla la ma leen wax sànq bu ko neexoon def ko muy buur bu am lépp waaye daana toog moom jabootam ñetti weer yoo xam ne cin du tàkku ci këram jàpp naa amul kenn ci yéen lu dul dégg na xadis boobee la nga xam ne wér na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana xëy suba amul lu mu lekk ba benn xeer lay jël takk ko ci biiram ngir mën a taxaw jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam kon yow jullit bi foo mën a dëkk ak loo mën a am la nga xamee ne mooy sa problème mooy sama diine sama diine baa diine ji dara yàquwu ci baa li ma yàlla sant dara yàquwu ci gannaaw ba nga sabablu bu la yàlla mayee nga sant bu la yàlla xañee nga muñ bu la yàlla mayee nga sant bu la yàlla xañee nga muñ ca mënoo fexe ba dund coono yi nga xam ne yonent bi ak sahabaam daan nañ ko dund dañ daan génn jihaad fi sabilillah daawuñu lekk lu dul ay xobi garab dañ daan génn jihaad fi sabilillah dem bay lekk benn tàndarma par jour ba suñu borom yàlla netti li ñu ko demal ci suratu tawba kon pauvreté boo mën a dund tey sahabatul kiram dundoon nañ lu raw loolu lay sa problème numéro un nga la waay ne nekk sa diine nga la waay bul fàtte sa borom suñu borom yàlla jalla wa ala nee na ay yéen nit ñi ngal la way ragal leen yàlla ca ngeen xalaat lan moo leen di xaar ëllëg yaa ayuha allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li xadin ku nekk ci yéen problème am na nekk bis bu ma dee lan laay dajeeg sama borom wattaqullah inna allaha xabirun ma taamaluun ragal leen yàlla fu ngeen mën a nekk lu ngeen fa mën a nekkee yàlla mu ne xam naa ko fexe leen wala takunu ka lazina nasullah fa ansaahum anfusahum bu leen mel ne ñi nga xam ne fàtte nañu seen boroom fàtte seen boroom mooy lan fàtte seen ndigalu boroom fàtte seen diggu boroom suñu boroom mu ne ma fàtteloo leen seen bopp te mooy fàtteloo leen li leen jëriñ borom bi it xam leen ne ñaa adduna ñaare fi nekk muy asxaabul janna ña nga xam ne ñooy ñu ñuy àjjana mooy ñu gëm yàlla wéetal ko topp ay ndigalam wa asxaabu naar ak ña nga xam ne fàtte nañ yàlla suñu borom yàlla nag mu ne laa yastawi asxaabu naari wa asxaabul janna asxaabul jannati humul faizun du yem mukk ña nga xam ne àjjana moo taxoon yàlla bind leen ak ña nga xam ne safara leen yàlla jagleel ña nga xam ne ñooy texe dëgg mooy ñu ñu àdduna kon mbokk àddunaa ngi noonu yàlla nañu yàlla boole ca jaamam ya ko jox kem ba mu war a am yàlla nañu yàlla boole ca jaamam ya xam àllaaxira ak dayo ba mu war a am ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm ci àdduna defal ñu jàmm ci àllaaxira defal ñu ko ci defal ko bépp julit yàlla nañu yàlla musal ci àdduna di ñu fitnaal yàlla nañu yàlla musal ci seytaan yi di ñu fitnaal yàlla na yàlla màggal àllaaxira suñ biir xol xamal ñu yoon ba ñuy jaar ba ñu am ngërëmam ba yeyoo àjjana yu kawe ya allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين